na génne kilo ceeb kilo suukar ak litre diwlin bu ñu ko saraxee daal di def ay ñaan yàlla sunu borom mën na fee jële mbas mi ndax lii kese rek dong moo ko fi mën a jëlee moom sëriñ bi ne lii bu ñu ko deful ñetteelu vague sax mën naa am ci réewum Sénégal wàppi coronavirus réew mi garaaw na yéen a kaay gii di Vox Populi ak L'As ak Libération ak Le Quotidien na wopp ñi ni ki démb am na lu toll ci fukk yoo xam ne faatu nañu ci am na jamono ci lu toll ci fanweer ak ñeent ci ay cas grave maanaam ñoo xam ne ñoo ngi Sowétas dikki démb am na lu toll si ñaari téeméer fanweer ak fukk ak juróom-ñett ñu amee woppi coronavirus ci réewum Sénégal yéenekaay gi de Libération nee na Sénégal lu toll si juróomi téeméer ak juróom-benn ci ay nit ñoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci mbasum coronavirus yéenekaay gi nee na 500 décès yi Sénégal yegg na sa yéenekaay gi de Libération nee na benn fan ci weeru janvier jàpp fukki fan ak juróom ci weeru janvier am na lu toll ci 96 décès juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan lu toll ci fukki fan ak juróoma yéenekaay gi de Rewmi ko di jeex xëy séq waxtaan wu yaatu ak El Hadji Faye di ab waykat boo xam ne ràññee nañu ko lool ci réewum Sénégal moo wayoon way wu sii woowu di sàmmina moom El Hadji nag dafa nekk ci ay jafe-jafe yu métte métti waaye tamit ay jafe-jafe yu doy waar ndax dafa feebar ba maara day taali moom El Hadji Faye waykat bi waaye tamit dafa am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum xaalis mënalul boppam lenn fi nga xam ne sax fa la dëkk ci ab appartement soo muy ko fa génne moom El Hadji Faye taskatu nekk ci réew mi quotidien laaj ko ndax na ko état bu jàppale na la nee na état bu Sénégal amul lenn loo xam ne defal na ko ko ñu ne ko kan moo la jàppale boobee mu ne Youssou Ndour ñu ne ko ñaata mu ne benn million bu fekk deux cent cinquante mille daat nay wax ne ministre bi ñu dénk wàllum culture amul lenn loo xam ne defal na ko ko moom El Hadji Faye yéen a kaay gi di réew mi quotidien la xëy séqal waxtaan wax na ci woppi coronavirus ak xaalis bi nga xam ne moom lañ jegleloon artistes yi nee na jot na wàllam daat nay wax fi nga xam ne moom la commencé ab carrière am ak jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci wàllu musique moom El Hadji Faye cent mille daat nay wax ne jamono ji li am ba des dafa feebar ba pare ma ngi ci ay jafe ki nekk ci ay jafe-jafe mooy Boubacar Seye bi jiite Horizon sans frontières jamono jii ma ngi ci ab garde à vue ci section de recherche ba ca Colobane laas yéene kaay ak Vox Populi ak enquête nee na Boubacar Seye la ko ko jural dafa yëkkati woon ay kàddu wax na nguurug senegal dañoo jot ay koppara yu jóge Espagne ak Union européenne jëm ci wàllum émigration clandestine ngir ñu mën ko saafara loolee moo tax ñu teg loxo Boubacar Seye dafa demoon Espagne bi muy ñëw la ñu ko jàpp yéene kaay gi nee na week-end bi ca section de recherche la koy passé moom Boubacar Seye Horizon sans frontières ñoom nag démb génne nañu ab communiqué nee nañu lii nag harcèlement dëggantaan la ak jaay doole yéenekaay gi de Les Échos nee na Boubacar Sèye danañu ko defeere altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ca kanamu procureur Seydi Gassama daan nay wax ne ña nga xam ne ñoo nekk sa njobbaxtalu nguur ga ñoom ñoo santaane ngir ñu jàpp Boubacar Sèye waaye nag li tax ñu jàpp ko maanaam teguñu ko fenn yéenekaay gi daan nay xëy wax ci Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ne démb daan nay wax ci lu jëm ci wàllum nguur jigéen ci Sénégal daan nay wax ne bis bu ñu ko fi légaliser boobee caaw xëm maanaam dànkaafu na ñi nga xam ne ñooy député daan na leen di wax tamit na leen mboolem loi boo xam ne voté ngeen ko fi bis dina ñëw di ngeen jàkkaarloo ak yàlla sunu borom te da ngeen ci indi ay explication dangeen ko layal yéen a kaay gii di li ko di cee ñu koy jànge fane ki nga xam ne moo doon yónnante yónnantelu di prophète prophète lu di baaba malaabe ci diwaanu Kolda jamono ji ma ngi ci ab garda wii waaye nag ba ñu koy déglu laaj nañ ko na ko xale bu jigéen bi nga xam ne ay atam fukki at ak ñeent la te ñuy wax ne da ngeen a ànd yéen ñaar sim seen mari ngaañi ndax loolee dëgg la moom kii nga ne mooy baaba malaabe daa dina koy weddi nee na xale bu jigéen boobee yégguma si ma yegg ci yéen a di Vox Populi nee na Assane Diouf mi nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy insulteur public numéro un niki démb àtte nañu ko ci tribunalum Dakar waaye nag bi ñu ko waxee ne ko Assane ndax mën ngaa saaga nee bis bu ñu ma bàyyee provoqué ma bàyyee saaga yéene kaay gi nee ko létt wala ñu ko ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru janvier wi nga xam ne moom la ñu ma la parquet bi moom dafa wax ñu tëj ko juróom-ñett ci ay weera yéene kaay sax yokk na lépp su ngeen gisee mu dal ko li mu àndul ak Macky Sall moo tax yéenekaay gi de Les Échos xëy di ñu jottali ay kàddu yoo xam ne Assane Diouf moo ko yëkkati ni ki démb ca tribunalum Dakar nee na li nga xam ne moo ko métti ci mbir mi keroog bi nga xam ne moom la ñu koy jàpp ci États-Unis di ko indi Sénégal dañu koo escorter mel ni ab terroriste la yéenekaay gii de Le Soleil daan wax ne réewum Sénégal ak réewum Gambie jamono ji ñoo ngi xeex lu ñu mën ci dagg bant gi nga xam ne gars yi ñoo ngi koy dagg bant ci lu jërul yoon maanaam tolérance zéro yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy génne ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Mali nee mission bi nga xam ne ne waa CEDEAO ñoo doon def ngir nag évaluer li nga xam ne mooy transition bi liggéey boobu mat na nee nañu sax fii ak fukki weer ak ñeent danañu fa organiser ay élection générale yéene kaay gi di sunu làmb Bécaye Mbaye di dalal xel yi ci combat Modou Lo Ama Baldé nee na danañu ko amal ci arène nationale waaye nag bu boobaa huis clos lay doon yéene kaay gi di stade xëy ci derby bi nga xam ne mooy dox diggante Liverpool ak Manchester United journal bi nee na fukki match ak benn yi yëpp Manchester mujj football amu ci benn défaite journal bi daan nay wax ne Liverpool